toujours loolu soobuwaat dafa suñuy diin teg ko suñu diine lépp lu ñu digal ñu def ko lépp lu ñu digal ñu def ko lépp lu ñu tere ñu bàyyi ko lépp lu ñu tere ñu baaxal ñu ñu defal ñoom te ñu digal ñu def seen imaam dina fi ñu defal ay xarit te bàyyi bu ñu def ko ñaar xarit ba ñu def baaxal ñaan yàlla ku ñaan yàlla yàlla na yàlla def ko. yow kay yow ba jot yow ba daal di ñu dem dem dañuy jël seen te man benn xeetu ñett si kaw moo ko yàlla mën na ko yàlla mën na ko am na gàttalal am na gàttalal moom moom lañ ko def ndax moom rek la ko yàlla kenn ko def ko yàlla amul kenn ku ko def ko yàlla kon nag yàlla moom kon nag yàlla loolu yéen jël si maay sama lu wax ne ñu ne ko sama yàlla sama mu ngi wax ne innahu la yaghfiru balaa illa bi dambi wala yurfa'u illa bi tawba mënuñ balaa mën a balaa bu bëri ñëpp bakkaar yu bëri su bëri sa bakkaar yu bëri moom duñ koy ko jiital nag suñ ko yëkkati ñu dem nag rek du du du sën la amul su dee su bu sën la amul kon nag ñun kon nag ñun ñii yàlla leen yaakaar yàlla rek leen yaakaar yàlla rek leen am yàlla rek leen am suñ suñu bëri suñu kilifa yi loolu la ñuy nampal loolu la ñuy nampal suñu la ñuy dund islam dönüyle dönüyle bildikleri yanında bildikleri tek bu katliamlarda yerler yerler yerler yerler bugün bugün bu bugün sesimize tutuyor bu bugün bugün de tutuyor Sözüne kime diyeceğim? Bu filmin mektubette yerlerini yerlerini yerlerini tutuyor. Ben de bunu, ben de bunu, ben de bunu, bayramane kaarol jeba wonko ganduɗa ɗo jangiɗo sen ɗuɗɗamol jangi ɗuɗɗamol tew giyale tew cikarom tewa giyawani tew cikaromon wonaji mene non wallahi wonwewol nonan konna ɗo sumbaro ɗo sumbarom yusay jam lay yurdi say jam lay ay tabe bay lay ay tabiɓe bay lay mingi tawa sini mbadu mingi tawa sini mbadu di tuub di tuub ñu ngi tàllal suñuy loxo. ñu ngi tàllal suñuy loxo. di tuub di tuub. yàlla na yàlla dugg leeral. yàlla na ko yàlla dugg leeral. yàlla na dugg leeral bas bii. yàlla yëppal ñu bas bii. ba mu gën a sori incha allah. ba mu gën a sori incha allah. yàlla moom la loolu. yàlla mën na loolu. am na ko am na ko. mën na ko def. te mën na koo def. yàlla na ko def yàlla. yàlla na ko def yàlla. ñu gën a gaawee. ci lu gën a gaawee la. voilà Cheikh Mouhamadoul Amine Baba ngeen doon euh, déglu noonu di ko seetaan itam mu doon rek ay kàddu kàddu yërmande waaye kàddu itam sant kàddu ko fàttali macha allah. bëri dañuy ñëwaat benn woon. daanaka ñëpp ñu ngi ñëw fii. daanaka ñëpp ñu ngi koy fii ñu toog taay fii. ñu ngi taay ñu nekk na ko. loolu taay yooyu bu ñëpp dafa ko yàq fii. ñu nekk moom ne ndox mii. bu fekkoon ne ko wax ndox mii. ñu taay yaa ngi fii. ñu xam ne ñu xam naa mooy taay yaa ngi fii ñu xam ne taay nit ñi. waaye nag. waaye nag. yàlla bu dogalee. yàlla bu dogalee. ñu ngi nangu rek. dañuy nangu dogal rek. Yàlla kon ñu ko tawal suñuy loxo. ñu ji ko suñuy bopp. ñu ngi ji ko suñuy bopp. ñu ngi ci laaj. di def di nangu. di nangu. yal nañu yàlla baal. yal nañu yàlla baal. yal nañu yàlla baal. yal nañu yàlla baal. yal nañu yàlla baal. yal nañu bas mii. yal nañu ko bas mii. yal nañu ci yàlla. dinaa yal na ci yàlla. kon. ñu ngi Cheikh Ahmad Tidiane Khalifa. kon ñu ngi Cheikh Ahmad Tidiane Khalifa. الإسلام جبل الإمام جبل الشيخ محمد الناحي جبل الشيخ محمد الطاهر جبل الشيباني يقدر جبل الإسلام جبل الشيباني يقدر شهر الإسلام ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إننا سمعنا بنبيا إذا بالإيمان أنا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد وآمن دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Thank you.

yàlla yàlla yombalal baykat yi lépp lu ñuy seetlu te jërëjëf ndox mi dañoo def ko waxtaan wu ñuy fàttali xoolal yàlla bu la nekkee yéen a tudd say waaree ko moo ñu wax lépp. wala wala su woo ci lépp lu mooy docteur yu bëri te itam suñ ko defee lépp lu mooy ci ñu juubu docteur juuba ci borom waaw man ci loolu jëmba dañ ko yóbba ba ñaar ak ak ak ak waxtaan yi nga naan dañu